asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yu ñuy suivre sur wasaare TV wasaare lamb tey nag ah, ñu toogalaat ki nga xamante ni suñu papa la nekk suñu lépp nekkoon ci li nga xamante ne moom mooy làmb jiite écurie ànd ak ay xaleem tey nag ah, ñu fekk si ko fii si Medina fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy lamb beneen bi mooy lépp xam nañ actualité yi mooy li nga xamante ni moom mooy arbitre ak li nga xamante ni waa CNG yàgg na cee wax nag moo tax nag tey nag pour waxtaan ak moom day neex te day yomb parce que njëkkoon nañ ko seet si waxtaan ak moom Père Kairé maa ngi euh, maa fi maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax di julli si bi am kontaan tey dalal leen fii ci Medina comme ni nga ko waxee sunu benn si kenn si sunu doom war dem ci bés bu mag bu am solo muy bébé Diène ak Fourrière donc ngeen bàyyi seen lépp ñëw fii vraiment def si liggéey bu mu ci ayib donc après événement bi ngeen toog na waxtaan ak moom loolu mbégte la ak kontaante man loo xam ne lépp luy euh, doxal làmb wala muy mu yëkkati làmb rek daf may soxal assotement nag wasaare làmb di site boo xam ne dafa xew si jamono ah di site boo xam ne Fatima moom bu fa nekkee Fatima mu ngi wasaare làmb loolu bës la kon tey maa fii maa ngi lay nuyu baax di la dalal di am kontaane daal tey question yi vraiment di la déglu rek loo ma laaj rek ma tontu la incha allah. papa bala ñoo ñëw ci li nga xamante ni moom mooy actualité bi mën nga ñoo fàttali rek euh, instant bi père yow yaa jiite écurie euh, Soumbédioune ak xale yi mën nga see ñëwaat ci écurie bi. waaw mën naa si ñëwaat parce que damay sant yàlla rek euh, tey ku gis li si biir Médina si digg Médina xam na tey yàlla may na ma loo xam ne daal damay sant yàlla léegi quoi parce que ubbi écurie yombul mais boo xoolee 99 la écurie Soumbédioune sosu boobu ba tey ñoo ngi maintenir. ñu dem ba tey yàlla def ay xale juddu fi ay ku mel ni ay jéen kayre ku mel ni ñoom mbañi ku mel ni ñoom bébé jéen ay boy xaaf ay baaba maal ah, tey kullim sax jum ci xale yi mais tey xale yooyu yëpp topp la et ma gis jom joo xam ne si ñoom euh, man noonu laa meloon bi ma nekkee bi ma amee seen age parce que man loolu laa leen di gëmloo loolu laa leen di tàggat parce que làmb yombul euh, pour nga def ko il foog nga am jom il foog nga am ngor il faut nga am fit il faut nga nangoo entraîner man tey jii tur tur yi ma yàlla may si làmb yëpp je crois bien que ne bu ma delloon en arrière du ma ne lenn may ma ko loolu si gannaaw yàlla mooy dama amoon jom amoon fit nangu woon am kilifa euh, def benn performance bi moo tax tey képp ku nekk écrit Soumbédioune man si loolu laa lay tàggat ñoom xam nañ loolu jeune ne badine pas avec le sérieux je ne badine pas avec xam nga les entraînements je ne badine pas que ku ci nekk nanga nga respecté say waajur ku ci nekk na nga respecté say entraînement boo euh, boo di deel a tëdd sport loolu la laaj donc euh, alhamdulilah ñoom ñëpp déggal nañu donc mun naa ne daal maa ngi sant yàlla quoi ci écurie Soumbédioune ak xale yi. père ñu gis léegi écurie yu bari da ngay ñëw boo waree entraîner 17h 18h ngay ñëw di jaay affaire star star lu ñu gis parfois am ñoom te ni sax duñ ñëw ay entrainement am ñoom te ni combat ba combat moo leen di indi seen écurie loolu noonu est-ce que réglement de discipline am na ci écurie bi. waaw am na si écurie bi xale yi sax ñoom ren dañoo waar parce que tey jii parce que écurie bi dem ba biir mu jaral ma nag. ñëpp xam nañ ne léegi dëkkatuma Medina yàlla mu ma may màkkaan fële ca kër njaayloo bi loolu amee toog naa benn trois ans boo xam ne dama xawoon tey tuuti jëloon écrit bi nag teg ko ci ay loxo mais dama dem ba ci biir ne il faut ma ñëwaat mu jalal na ma nag xoolal may même bu ma yorul oto sax di dugg ci oto yi di wàcc parce que kër njaayloo ak Medina du affaire bu ndaw pour nga ñëw fii à chaque fois il te faut six mille sept mille francs par euh, par ñëw diaa bi mais tey écrit su ma jun jalal na ma lu ne ren maa njëkk def assemblée générale ci écurie yi je suis le premier écurie à à faire un assemblée générale bu am benn grande envergure boo xam ne pour lan pour wala xale yi ne leen la woon woon na per ñëwaante te dama bëgg dama bugg am ay résultat ren. ay résultat yu positif la euh, laa bëgg ba tax na écurie bi dama ko defaraat dafa am discipline xale yi ñu ngi ñëw heure ñu ngi entraîner te dama dem sax ba def leneen. leneen mooy lan dem bari léegi mbër yi dañuy dañuy chaque mois ku ci ne da indi 1000 francs 1000 francs yooyu tey jii suñ ko dajalee bu ëllëgee bu euh, kenn ñaanu ko yàlla yenn saa yi mbër mën nga gaañu parce que xam a làmb li ci nekk yëpp kenn mënu ko wax mbër amul assurance mbër amul assurance mbër amul ñu jàpp moo tax léegi xale yi dama leen organiser ba nga xam ne ku ci nekk te yemul ci xale yi ak dirigeant yi nga xam ne bëgg nañ écrit bi ku ci nekk bu weer deewee nga ñëw indi sa 1000 francs jox am am nañ benn trésorier boo xam ne nit ku baax la maa ngi koy nuyu au passage euh, ku ñuy wax Ibrahima Pay Ibu Combaan ak ñoom ñoom grand père ak booy yooyu yëpp dajaloo nañu ak Moon Njaay ba ubbi benn compte boo xam ne léegi ñu ngi koy gérer foofu xam nga loolu yëpp bu njëkk amul woon parce que man bi ma nekkee en activité di bëre boobu man écrit bi lu fa mos a dee maa ko rey mais dafay am benn instant boo xam ne nag boo bëreetul boo bëreetul revenu yi nga daan am doo ko am léegi nag da ngay fexe xale yi ñu organiser wu ba nga xam ne dañ koy teg lépp si yoon bu ko defee nga wan leen ne lii mooy yoonu dëgg ñoom nag compris dañuy ñëw heure di cotiser heure ba ci guddi sax yenn dirigeant yi sax dañuy wër fii si Médina kuñ ci dajal guddi yenn heures yi à heure boo ñëwee le lendemain dirigeant yi am na lu ñuy séq yow kon waa explique non déggoo li ma la parce que lu amul sérieux du dem il faut il faut du sérieux il faut mu am rigueur actuellement nag loolu moom loolu fa la Soumbédioune tegu nii loo xam ne xoolal mosul am ci écurie man maa porté volontaire na l'écurie ça m'appartient l'écurie xam nga benn patrimoine boo xam ne maa ko créé donc du ma bàyyi mu réer wa bu ëllëgee bu réeree mais qu'est-ce que les gens vont dire fi nekk ñu koy dégg ci ay coow li Samba ak Demba te écurie mu réglé wu ko donc bay si say wéyu tànk moo tax macha allah et puis moo tax daal léegi tout va bien alhamdulilah. père ku ne ne Diène Kairé nekk sa doom mhm. ku ne écurie Soumbédioune ne bébé Diène mhm. ku ne écurie mhm. mais bu ñu jëlee si ñoom rek dañuy jël Diène ñu gis ni Diène sa doom la ba pare mais pour combat sax ci moom dafa jafe mu nekk xale depuis combat ak Quench ba léegi amul combat lu waral loolu waaw li waral loolu du Diène kese ah. te jii boo doon lim bu la neexee nga ne euh, Modou Anta amul combat bu la neexee nga ne Sa bi mu daanoo ci Boy Niang ba léegi amul combat bu la neexee nga ne Tapha Tine booba tey Bombardier et tant le problème de c'est pas Diène c'est pas c'est pas Diène c'est pas Bombardier c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas donc loolu boo ko jàngatee da ngay jàppale lamba ji moo am problème le problème de de l'arène c'est pas Diène nii nii Quenchi nii qui que ce soit c'est le c'est l'arène actuellement moo am problème ñun xam nañ loolu en tant que tel Diène xam na lool parce que ñu ngi siy waxtaan le monde de la lutte xam nañ y a des problèmes parce que sans les promoteurs la n'avance pas donc te les promoteurs fi mu nekk nii amatuñu xaalis bu ñu tëggee ñu ngi seen toog seen ruq di xool nag fan la wàllante mu ne bët euh, di mujj ak bëtam mais tey on est au mois de mars ñu ngi dugg ci euh, avril dugg ci koor gi te combat yi fi benn rek a fi taxaw donc y a problème. loolu li daal yéen moo daal ñëpp. mais père yow dañ ne yow da ngay jaay sa doom parce que ñu ne père Kairé lu bari lu gën a pénaliser lu bëree bari ci carrière waa Diène encore une fois ñëpp ne papaam la parce que moo koy jaay njëg boo xamante ni àggu fa quoi. non non du loolu du loolu tey jii euh, ñu ngi dox combat ak Modou Anta dox nañ combat ak Ama Neex ñoom nangu nañu bëre ak moom. maa ngi leen di nuyu au passage ñoom ñëpp samay doom lañ léegi ñoom nangu nañu bëri moom mais dañu laaj ay cachet yoo xam ne euh, man d'accord naa ak ñoom ci cachet yooyu ah parce bu fekkoon ne lamb yooyu ñu laaj dañ leen koy fay mais ñoom nee nañ mënuñu bëri seen combat yi mujj fay leen cachet yoo xam ne ku mel ne ama neex ñu fay ko loo xam ne vraiment te ba pare mu daan boole ci ñu koy fay fax cachet bu gën a wàcc loolu loolu tax combat yooyu taxawul donc côté côté beneen jaay aussi man aw ma intérêt euh, téye jén du bëre xam nga des fois nit ñi duñuy fore ci wéyu bëy dañ naan dégg naa dégg naa dégg naa mais tey en tant que tel dama toog si war a wasaare làmb di waxtaan mais li may wax man lu ma gëm la te ëllëgee jéen dana toog seetaan ko kii que ce ne dina toog seetaan ko mo suñu am problème mu adversaire ak cachet waaw bañ na ko ba combat yi sax ne moom sax dafa nangu sax nañ wàññi sama kese sax jox leen mu bëre ñoom kon waaw kon kooku kon kooku bu gën a bëre kon situation bi du kase kase mais côté làmb ji moo am problème loolu indi problème bi. kon Père Kairé kon ñi naan day jaay doomam da koy kii kon jaayul doomam promoteur yi ñoom ñoo fayul cachet bu bari Père benn bi mooy. jën dafa bëre ki nga xamante ne moom mooy Quench. nga taxaw ne. per Kairé léegi euh, recadré booy bi. ne désormais léegi mayatul jën di def kon li mu daan def ndax léegi jën il faut que mu taxaw. xam nga bañ a bañ a songati quoi parce que keroog jël nañ la ba mu pare yow est ce que tamit loolu du am leen loo xam te ni day xaw a manqué jéen tamit. waaw lépp travail la xam nga combat ne dafa am noo koy liggéeyee yenn saa dafa mel ni oto yenn saa yi nga signalé gauche jàddu droite combat passé ku ci tënku wala ku si foog na bu prochaine combat am noonu lay bëre mën nga mën mën nga juum waaw parce que stratégie la woon. Coent xam na tey combat bi xeex ak yéen arrangé wu ko. xam ne jàppanteeg bëreeg jën enragé ko mu daal di taxaw téye boppam mbër nag bu téye boppam yow nga am ay mbokk am ay ay ay am ñu liir combat bi xam ne kii ba tey ñëwul pour dafa aj jël ay gardam aj ko di xaar pour nga maamu ci kaw mu la donc combat boobu lool loo mais loolu moo amoon ci combat bi coincé dañ ko comme comme jën il est fugga te day rek yow wàccal tibb ko dawale ko te am na ay yoo xam ne bu dalee dalaat la làmb bu baax dañ naan encadrement am la ñu xam nga Sénégal tey boo defee lii ñu ne leen imagine tey combat bu jën maam moon daw songi ko waa ñu songo ko daan ko lu ñuy wax encadrement ma ñoo ko ñoo ah, dañ ñoo yëpp ñooy ñoo jumloo booy bi mooy Sénégal rek li woykat bi waxoon rek boo defee lii ñu la waroon defee lee nga waroon def boo defee lee ñu la waroon def lii nga war a def donc nañu xam ne mi ngi si liggéey te fi ñu ko teg mi ngi si mi ngi ci place am di liggéey donc nañu xaal xaar dans l'avenir rek qu'est-ce que va nous donner incha allah mais daal la mu indi woon ñu ngi siy liggéey teg ñëpp nañu xam ne bu ñëwaatee nañu xam ne xale bi nekk tëdduloon dina munoo doon diwee sama baay ngay tëdd di nelaw ñemewul loolu waaw tey lamb mooy gagne-pain moom la gëm ñu ngi entraîné sérieusement li des nag incha allah dans les années à am ren mun na si bu fekkee ne mun na nekk ok on est prêt. am nga yaakaar mu bëri ren. ren non ak situation ma gisee ni man gëmatuma ne mun na am mais nag on ne dit jamais on ne dit jamais duñ ne mënul nekk mais l' essentiel daal tey jii buñ ne woon combat am taxaw fii ak un mois sax mun na bëri parce que pare na. léegi nag le problème mooy qui pose problème c'est les promoteurs parce que les grands promoteurs yëpp ils ont reculé promoteurs yëpp a reculé fi mu nekk nii. maintenant Abdou Fall moo ci signalé à part Abdou Salam Abdou ah, koy dogg. waaw waaw yooyu waaw armée armée waaw combat yu neex la waaw combat aussi combat yu neex la euh, armée caat aussi euh, ak kii armée armée fëgg la combat bu neex la caat mooja aussi combat yu combat bu neex vraiment combat yu neex la ay xale yoo xam ne la làmb am nañ si yaakaar. même Gris 2 Abdou Diouf ah. waaw Gris 2 Abdou aussi. tamit combat bu neex la waaw yooyu aussi c'est des affiches yu neex la quoi. Ah. Hmm. Hmm. père ñu gis jéen ñu bari nee nañ. dafa wàññi poids bi ñu gis jéen dafa rasé quoi. par rapport dama koy tooñ sax naan ko da ngaa pataaw nga woon mais léegi mais dafa raser lu waral loolu. non xam nga àdduna loo gis rek euh, athlète da nga koy suivre combat ba la passé gis nañ ne xëy na amoon na benn surpoids boo xam ne sax est-ce du loolu sax moo xëy xawoon xaw a bloqué tuuti. Ah, waaw mais léegi xoolal dama ne mu la bu ko neexee sax tey jii nu ko neex def dañ ko travail mu nekk à l'aise te ku ko gis noonu xëy na ko gis nii mais la na ci biir ëpp na li nit ñi di gis nii te ñun loolu la ñu gëm. man tollu woon tollu ma woon ni gaa yi waaye dama amoon safara waaw la ne woon loolu nag laa bëgg indi si moom ñu def ko ci moom du toll ni gaa yi waaye am safara boo xam ne comme ci nga xam ne ah kii daan tuuti na waaye dangar gaa ngi ci biir ba ñu te booy nañ ko ba muy bëreeg euh, marle ba mu ñëwee stade dañ ne mais kii kële sopp rek jéen dafa maigrir waaye ba ba mu jàppanteeg marle hmm. parce que xam na ne ci biir li ma téye nii ak la ma foog amul te loolu la ñun dañu bëgg man dama gëm athlète nga athlétique bu la neexee prier bu la neexee supp jàll ñu lu la neex def moom sa yaram donc moom nag ci état boobu macha allah ci état boobu la toll noonu. Hmm. ñaata poids nga daan temps sa jamono. Euh, bi may bëreeg bomba bombardier boobu maa ngi ci 87 kilos waaw boobu dama yenn saa yi sax ma toog ma tooñ mbañ ma ne xool bi may bëreeg bombardier sa sa sa kii sa sa poids la amoon ak sa taille waaye amoon naa safara boo xam ne boobu kenn du ma laal hmm. waaw vraiment donc loolu la woon quoi. Hmm. père loolu benn parenthèse la rek parce que tamit Bassirou du ñu toog ak moom ndax euh, nekk papaam ba pare di ko suivre moo tax mu nekkoon parenthèse rek mais per beneen bi mooy nan nga gisee làmb ak boy yi nga xam te ni ñoom ñoo nekk ci kaw ku ci mel ni ñoom Balla Gaye Bombardier Lac de Guiers mooy camp VIP yi nan nga gisee euh, camp boobu. kaa en fait bon pour pour question bi ni ma ko gisee c'est-à-dire bon j'ai pas bien compris aussi. Euh, comme camp VIP xam nga grand contre petit dafa am mais ñooñu nan nga leen gisee. waaw ni ma leen gisee rek mooy que làmb dafay toll foo xam ne ñu nekk ci kaw au top parce que génération en génération làmb noonu la toujours demee à chaque fois yàlla day def day am ñu ne ci kaw am ñu ne ci suuf mais léegi pour mu mu neex jaxasoo il faut que des fois ñu xaw a may sax ñu nekk ci suuf pour ñu ñëw fekk leen loolu day gën a neexal làmb rek Modou Lo loolu bi muy doog a daan am euh, Eumeu Sène xalaatul woon bërëg Ama Baldé waaw kooku moom xalaatu ko woon parce que il était dans l'euphorie et puis mi ngi doog a jël roi des arènes daan magu Ama Baldé jël roi de arènes si moom kooku jamono boobu si saa si maanaam réaction boobu ku ko ne woon Ama Baldé du ko dalaan lañ meññ dañu dof mais après bi mu demee xool toog toog xam ne tey ji Ama Baldé bërëg moom tey day tax làmb suqalikuwaat parce que ñaar ñoo xam ne ay am nañu am nañu public ñu bëree am na fu mu mën a yóbbuwaat làmb ji ku mel ni Boy Niang la même chose toll nañ foo xam ne war nañu bële balle bon am nay taan nangu woon na mais demaan na ba ci biir xëy na ak staff bon peut-être nga dégg tey ñu ne nangu na bu subaa ñu ne nangul mais il faut ñoom ñu si kaw jël xale yi suuf tiire leen pour ñu mën a bëre ak ñoom wa ilaa Tafatine Boy Niang wa ilaa Boy euh, Boy Niang Bombardier yooyu yëpp ay combat yu leex la li si kaw daal il faut que ñu may xale yu chance pour ñëw fekk leen pour làmb ji gën a ubbeeku mais est-ce foofu mooy problème mu làmb pour man pour man foofu de. tey jii problème de promoteur la rek Balla Gaye ku ko fekkoon mu toog moom Boy Niang nga fay ko lu weex tal day bëre parce que làmb liggéeyam la làmb liggéeyam la problème mu làmb du adversaire yi les adversaires ne manquent pas c' est l' argent qui manque c' est le sponsoring qui manque qui manque loolu moo làmb mais du ay problème mu combinaison parce que seen gagne-pain la te at moo toog bëre woo mais sa pertement la mais problème du foofu problème mooy xaalis moo amatul ci làmb ji promoteurs yi ñëw euh, amuñu xaalis bi ñu fiy tëgg xaalis bi ñu fiy tëgg loolu xaalis sponsoring la woon mais loolu gars yi ñoo reculé hmm. père su ma ne la Balla Gaye ne la Modou Lo Eumeu kan moo ëpp bëri. diggante balagay Gaye Modou Lo waaw non ñoom ñëpp ay bërikat lañu c'est ku si nekk dafa am loo mëne parce que booy xool daanante nañ seen biir ñu ngi ma limal kii dafa daan kii kii daan kii kii daan kii bi kon mëneen moo fi am. waaw ku ci nekk am na loo mën a ku ci nekk am na loo xam ne boo ko eggee sa morom mu daan. mais am na ku ci bëri. foog nga yóbbu xam naa ko. <laughs> waaw waaw mooy mooy li ñëpp rek xam nga bon. te it bu euh, xel mu na euh, nangu loola euh, fa mu bëgg a baal ma koj la foofu xaa xam nga mag du dàqe day koj uh-huh. dama lay koj rek yow Balla nga bëgg indi foofu uh-huh. <laughs> waaw Balla mën na bëre waaw xam waaw d'accord mais xam nga ku ci ëpp bëre boo ne tey bala Gaye moo ëpp bëre da nga ëlbati ko nag Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon comprendre moo tax ma ne la affaire mën a bëre moo ci ëpp solo Eumeu mën na bëre Balla mën na bëre mën na bëre ñoom ñëpp mën nañ bëre parce que am nga loo xam ne am nga ñaar ñetti bëre te mbër bu demee ba am ñaar ñetti bëre ñeenti bëre rek mën naa bëre waaw mais ñooñu ñëpp ay ndaanaan lañ moo tax sax ñu egg si dimension bu ñu egg si vraiment. Mhm. Père Kairé ñooñu kañ la ciy gis boppam. ñooñu ku ma ciy ñoom ñëpp ñoom ñëpp daal waaw Modou Lo gis naa sama bopp bala Gaye gis naa sama bopp. Eumeu Sène dina ci gis sa bopp non non père père xam nga man père man père Xaadim maa ngi leen nuyu bu baax a baax père mais xam lu ma jaaxal xam nga su ma nee laa kañ nga ciy gis sa bopp muy père Kayre parfois Balla Gaye bëreem wala benn Modou Lo bëre benn Eumeu Sène bëre benn Lac de Guiers bëre léegi père Kayre oh, ba ma ciy toll non kii bu bëree rek ma sentir ne man Kayre kii dama damay gis si moom sama bopp waa mais ñoom ñëpp a xarañ mooy li ma la wax tout à l'heure rek ñoom ñëpp dañu xarañ Balla Gaye dafa xarañ Modou la bañ ko moom Modou xarañ loolu lañ koy wax Omar Sène ñoom ñëpp Balla su bëree dama ciy gis sama bopp Omar Sène su bëree dama ciy gis sama bopp Tapha Tine su bëree dama Bombardier bugg parce que xam nga man euh, change bi mooy ñi ngay lim si ñu bëri dama bëri ak ñoom dama bëri ak Bombardier gis sama bopp bëri ak Modou Lo bëri ak Omar Sène Balla rek laa ci bëreelul ah. tia bi kon bara <laughs> ñoom ñëpp laay gis sam bopp ah. mhm. père beneen bi mooy la de ñu bari nañ day rasu parfois ñu dégg ñu ne rasu bokk ci làmb mais Lac de rasu boobu muy def tey bu ko bàyyi woon est-ce que làmbam dina gën dina neex. man euh, Sénégal ni ñi mbër la ñuy wax mais xamuñu làmb maanaam euh, système bu doxoon la Sénégalais yëpp bëgg ko waaye mais mbër bu dul rasu foo jëm mais Lac de Guiers dañ mu ñu xam ne dafa euh, dafa boo boo limee ñi mu daan ba tout récemment rek booy ñaaw bi mu daan bu dul woon cuune bu dul woon daanalu bërëkat du daan booy ñaaw su dul woon daanalu bërëkat du daan Yékini mais mbër da ngay mun a rasu parce que dafa euh, njool la te njool nag da nga war a defee sa tànk day dëgër bu la ndaama songee boo mënul rasu looy def ñu song la nga daanu mais loolu moom pour man wax ju yàqu la dafa mun a rasu mais amul nag mbër boo dul song fi du rasu le moo rasu Balla Gaye boo ko songee day rasu Eumeu Sène boo ko songee day rasu est-ce que nga fii ko fi song mu rasu mais xëy na moom dañ ko féetaleel foofu nag man moo tax ay jëlam néew mais bu doon ku ko song dawale ko mu daanu kon dana bëri ay defet de mais dafa mën a rasu mën a mën a rasu si mën a bëri la bokk moo tax te aussi bon stratégie booy gagné toujours doo ko bàyyi waaw parce que mënatu ko bàyyi sax parce que bi muy xale ba léegi loolu lay bëree et puis dafay rasu ba pare di bëree boo ko songee mun na rasu ba pare def contre attaque jël la daan la waaw loolu la ci la ci làmb la bokk waaw. beneen bi mooy duñ jeexal ci camp boobu Tapha ñu gis ne pour moom adversaire sax problème la yow tey adversaire u Tapha am kan mooy adversaire potentiel. ñoom ñëpp ay adversaire am lañu Balla Gaye adversaire am la Modou Lo adversaire am la Eumeu Sène adversaire am la Gris Bordeaux adversaire ak keneen keneen Boy Niang adversaire am la tiya bi mais dama lay xamal dara tafaatin guddi yi ñu toll naxare naa daan mbër day toll foo xam ne bu ay atam demee expérience bi bari mu am si lu mu jóge tiré ci ay dootul neex daan dafa am fu mu jógee muy combat ak Ama Baldé boobu da ko yee ci lu bëree bëree bëri. te te des fois loolu si dafay baax ci un champion nga nga daanu foo xam ne waroo fa daanu lan la lay def da lay forger waat nga reculer waat liggéeyaat gëmaat boppam. guddi yi am na doole gudd na rëy na macha allah je touche bois gudd na rëy na am na doole te expérience bi ñëw na léegi doo mbër mu naqaree lay daan lay doon léegi waaw je crois bien est sax loolu taxul gaa yi di ko wiiri wiiri waaw parce attention ndax neexuloo daan léegi de man maa la wax lii jàppal li la wax. ku ko ci jël di nga di nga di nga am porom di nga bëre di nga xeex waaw. père euh, wax dëgg yàlla leer na ndax. Euh, leer na nañ. <laughs> waaw waaw kon ni ma koy waxee rek neena leen dañuy tàggoo tàggoo bu dul tàqalikoo mais bala maa tàggoo damay béggee ñi nga xam te ni ñoom ñoo ñuy suivre ah, les internautes ñu ngi leen di béggee bu baax a kontaan nañ ci yéen gis nañ accueil bi gis nañ li ngeen di sonnee suñun mais li may wax rek dañ naan doole jël ndox mais ñun yéenay suñu doole yéenay roi yéenay rey ba tax na kontaan nañ ci yéen bu baax a baax mais damay béggewaat ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa ngoonalu làmb ku ci mel ne Assane bu armé maa ngi lay béggee bu baax a baax naan la dañ see jàpp bu baax a baax naan la nag fi nga teg sa tànk foofu la damay jël may jël nuyoo bi rek jox la ko nga tasaare ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Basiirou ni ma ko waxee rek l'infatigable maa ngi lay bëggee wat bu baax a baax naan la wax dëgg yàlla yow su ma la amul woon dama koy defee ñii dañ leen di seeti kon ni ma ko waxee woon rek dañoo seeti woon Sa Thiès seeti ki nga xamante ni moom mooy si toor te ñu moom mooy suñu papa noonu lañ koy defee a wax te dañuy wax perkare li mu wax wax dëgg yàlla yéen internet yéen yéen ay atte ba léegi ni ngeen bëgg noonu rek la ñuy def ko doon choisir dañ koy seeti ba tax na kontaan naa ci woon bu wér a wér nu ma ko waxee rek wasaare kese rek wasaare làmb kese doy fo daal Basiir kontaan naa ci yow bégewaat ñëpp.